Bienvenue sur votre site d'information Tivactu TV la chaîne de toute la. salaamaaleykum mbokki àdduna salaamaaleykum mbokki Sénégal rawatina mbokki Tivaouane. mbokki internet Tivactu TV nuyu nañ leen bu baax a baax ak ah, ginnaaw ni ngeen ko yégee nag xew-xew bi mooy li nga xamante ni moo dal ci àdduna dal ci Sénégal waaye tamit dal ci umma islamique bi yëpp rawatina waa Tiwaawan mu génn àdduna suñu sëriñ suñu papa sëriñ papa Malick si mi nga xamante ni moom moo nekkoon porte parole famille Seydil xaaji Malick si moom mi nga xamante ni ñëpp xamoon nañ ko ci jegeem ak bëggam waaye tamit soppam sëriñ Babacar Sy Mansour looloo waral gis ngeen boobu ba léegi nit ñaa ngi ñëw nit ñaa ngi ñëw délégation waa Touba mi ngi noonu ci ndigalu Serigne Mountakha Bassirou Mbacké moom mi nga xamante ni mooy xalif général des Tidianes délégation Touba mi ngi noonu ki ko jiite mooy porte parole bi Serigne Bass Abdou Khadir Mbacké ñëw déplacé wu gisanteeg Serigne Babacar Sy Mansour xalifa indil ko seen njaal indil ko ñaanalu xalifa ba indil ko tamit yóbbante xalifa bi lii na day wone ni nag Sénégal lépp benn la lay Touba mooy Tivaouane lay Tivaouane mooy Njaasaan mooy Canaba mooy Laayeen mooy feneen lii rek mooy àdduna lii mooy senegaal gis ngeen Serigne Bass Abdou Khadir Mbacke mi ngi noonu mu ngi noonu toog ak Serigne Babacar Sy Mansour ñëw indi kàddu waaye tamit njaalu Serigne Mountakha basiiru Mbacke mi nga xamante ni moom mooy xalifa bi ndax gis ngeen li ma leen waxoon sànq rek àdduna lépp benn la ñoom ñoo bokk li ñu bokkul li may won ni Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar waa Touba ñëw. indi seeni kàddu njaal waaye tamit indi seeni kàddu masawu ci tuuru Serigne Mountakha Bassirou Mbacké teg ko ci loxo Serigne Babacar Sy Mansour xanaa rek ñuy cof suñu kàddu ci leen di wax ni Serigne Papa Malick Sy yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko ay maamam ak ay baayam ak ay magi teeru ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa